man de barke Serigne Fall su ma amoon lu dul jeex moom mi laa koy jox. ñun ñu gën a tër rek lañ soxla ku ci mel ne rek rek sax dañ koo soxla. ñi ma ngeen nekk avance rek. dox loolu nga bëgg ko mu toog di jëflante doo toog seetaan ko. c'est que mën a toog seetaan ko daal moo tax. yow yi nga ko tànnal nii. yi laa ko tànnal de gis nga. mais maar la mii maar la mi choix am baax na de. ak ak musóoram. mais est ce waa géej waaye génn Balla Gaye ñëw Lac de Guiers ñëw ñëw. lamb ji dama ci am sëriñ boo xamante ni xam nga daf ma def affaire doy waar. billaahi wal jox ma ci ay ay bagages yoo xamante ni dama koy sangoo di ci am problème. mais est ce que bi nga demee ba ba majeur. wala dem ba toll ci yor téléphone dem ba toll ci yenn yi est ce que gëtewoo li nga jàngul. <laughs> waaw regretté na ko moom